asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw kon mbokk yi dellu si nañ ci tafsiru quran suratul baqara ñu ngi woon ci alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fi hudan lil muttaqin wax nañu prix bi nga xam ne mooy prix mi gën a siiw te nga xam ne ay boroomi xam-xam firi nañ ko wax ko ci wàllu alif mii waaye nit ñi léeg-léeg dañuy wax école yi nekk ci lislaam waaye bu ñuy wax école yooyu nekk ci lislaam masab ahlul bayt li ñuy wax masab shia duñ ci duñ duñ wax seen xalaat bokk na ci li taxit duñu wax seenu seenu seen xam-xam ci wàllu tafsir dañoo jàpp ne képp ku wax lu bokk ci ñoom ci ñoom nga bokk te kenn te bokk ci ñoom loolu la nit ñi gis ndax ali ibnul xuseyn xuseyn moo ko jur xuseyn mu ko jur faatimatoo ko jur ak ali ibn abi talib nekk na fi ci kanam maamam xam-xammee maamam door fee jógee Ousseynou bàyyam ali ibn abi talib euh, yonent ko yar ba tuddi ko baabul ulum donte nee wax jooju wérul àddina di dox ba léegi Zeynul Abidin moomu di àndi doomi Huseyn ibn Abi Talib di sëtab Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam booy jàngale tudd ko ne nee na ñu ne la ah yow bokkatoo ci lislaam nit ñi duñ ma setantal te loolu duñ ko setantal mukk waaye am na mbindeef yoo xam ne fu leen dëgg fekk nag fa la leen di bàyyi ndax su fekkente ni àddina dem na ba egg ci booy wax ci xam-xam ba tudd xelaati surtout yonent bi sallallahu alayhi ñu génn la ci diine kon bu mu amat dikkoon sax dañ ko génne ci diine te loolu ñaa ngi koy def man nag su may jàngalee damay wax fépp de ñëpp lay wax kenn ku nekk damay wax li nga gis léegi nag ñu demaat ci alif miim ku ñuy wax al imam ali ibn al al imam ali ibn al husayn doomi ali ibn abi moo ko jur muy setub fatimatu ak aliyu yaroo foofa jànge ci biir ahlul bayt dañ koo laaj ne ko waaw ali ibnul useyn alif laam miim lan moo tax yàlla wax ko ci alquran mu ne leen kaddaba qurayshul wal yahuudu bil quran wa qaalu haasa sihrun mubiin taqawwalahu fa qaala laa u alif laam miim zalika alkitaabu ay ya muhammad hadha alkitaabu alladi ansaltu ilayka huwa alxuruf almuqatta'atu allati min a alifun wa laamun wa miimun wa huwa bilugatikum wa urufi ijaikum kon faatu bi mislihi in kuntum sadiqin ngeen déglu bu baax li Ali ibn Hussein wax dañ koo laaj ne ko Ali ibn Hussein ñun dañ loo gis ci alxuraan alif laam miim lan moo tax mu nekk ci alxuraan ak lan la ci yàlla jiblu mu ne leen xoreysun dañoo weddi alquran ne ak njabar la moo koy répétel boppam di ko bindi tari yahudi ne alquran ak njabar la muhammad moo ko kereel boppam léegi nag yàlla ne alif laam miim dalika alkitaabu dafa jël ñetti araf ci uruful ijaa'iya yi alifun laamun miimun mu ne leen loolu mooy téere bi uruful ijaa'iya yi ngeen di binde yéen arab yi mooy téere bi moom loolu la wax dafa ne li tax yàlla wax ne alifun laamun miimun daf cee jublu ne leen yéen xuraysin bi ci alifu nag laamun nag miimun ngeen di bindee waaw alquran ba mu jeex ci alifun la alif a ba ja da ha wa sa a ta ya ka la loolu léegi loolu mooy li nga xam ne ci lañ bind alquran alquran ñi ngi ko bind ci lettre uruful ijaiya yi nga xam ne yéen xoreyshin moom ngeen di bindee làkk ko ci seen làkk wi ngeen di nàmp di ko demee marché su fekkente ni kay Muhammad dafa ñëw judd ci seen biir jàngi ci yéen ija yi muy abajada jàngi ci yéen làkk arab wax loo xam ne ci aruuful ija yi yooyu di alifun laamun miimun yooyu ci la ko ci la ko dajale te moo ko fexe te yéen ko mag fuuf def leen ni def jël leen ci aruuful ija yi yooyu ngeen di binde ngeen tegale ko ba def ci lu mel ni alxuraan ji moom noonu la waxee ne loolu mooy alifun laamun miimun mu ne li ci yàlla jublu mooy alif ak lam ak miim jiim daal waaw hakabir alsaxir ta sa yooyu ngeen dajale ba muy fu ñaar fukk ak juróom-ñett ngeen di ci bindee seeni soxla loolu ci la mu ammat wax téere bi zalika ci loolee nga xam ne mooy urufu ijaiya yi ngeen di bindee yéen arab yi di ci làkk ca la mu ammat tegale téere bi bu fekkee moo ko fexe ci la ko tegale wax ko ci la ko arab te yi na ko mag kon kay ti kon kay kon dag jël leen dak araf yooyu ngeen tegale ci ay wax ba mel ni téere bi moom loolu la wax ne Zaynul Abidin Ali ibn Husayn loolu la wax ne mooy alif laam miim mu teg ci ne ay yaa Muhammad haada alkitaabu allazi ansaltuku ansaltuhu ilayka huwa mu almutaxattaatu allati min min a alifun wa laamun wa miimun muhammad téere bii ma wàcce ci yow te ñu ne yow yaa ko dajaleel sa bopp yaa ko fexe du du du ngi koy wax ci alifu nag laamu nag miimu nag jimu nag daalu ni nga xam ne ñoom moom la ñuy bindee woowo bi loxatikum te ci seenu làkk la seenu làkk la yow mu amad a xoree si làkk woowu ngeen di làkk araf yooyu ngeen di bindee ndegam kay ci seenu làkk la wa urufi ijaikum bokk ci seen arafi iji yi waay waay waay xoreysin faatu bi misli faatu bi misli in kuntum sadiqin alifun laamun miimun bi moom ngeen di binde ci la ko Muhammad wax te lii ngeen moo ko defal boppam bu dee dëgg dàqu leen ko def leen bu mel noonu loolu day moom la Seydina Abidin Ali ibn Husayn wax ne noonu la noonu la loolu moo moo indi araf yooyu moom nag ci alul bayt la bokk doomi Seydu doomi Huseynu ma dee Karbala la sëtub Sidna Aliyu Fatima la waaye nag loolu la wax am na nag ñoo xam ne maani yooyu duñ ko jëlee ci ñoom ndax tax duñ ko jëlee ci ñoom mooy ni senegal mel rek noonu la mel boo dee boo dee taalibi xaadir di wax waxi maam Limaamu Laay léegi xaadir ne la yow ab laayeen nga waaw noonu la mel waaw boo dee taalibi murid di wax waxi maam Alaaji Malik léegi murid ne la yow ab tiijaan nga noonu la mel maanaam am na xam-xam yu bëri yu nekk ci mas ab imaamiya yoo xam ne ci ahlul baytu la jóge kenn ni ko gis am na boroom xam-xam yi koy gis xam ne lii lu yanu maanaa la lu leer la duñ ko wax lan moo tax duñ ko wax dañuy bañ ñu ne leen yéen ci ahlul baytu ngeen topp ba léegi keneen ku bokk ci ñoom ñu di ko wax ali ibnu moussa rida ali ibnu moussa rida ci ñoom la bokk ci alul bayt la bokk bañ ko laajee loolu dafa wax ni inna laa tabaraka wa taala ansala asal qur'ana bi asil xurufi allati yatadaawaluha jamiu al arab summa qaala qul la in ijtamaatil insu wal jinnu ala an yaatu bi misli bi misli asal qur'ani nañ ko def ali ibnu moussa moom dafa wax ne bañ ko ko laajee dafa leen ne alif laam miim yi ngeen di gis ak a ak taa alif laam miim saad ak xam nga lan la yàlla jibloo ñu ne mu ne yàlla dafa wax ne la in ijtamaatil insu wal jinnu ala an yaatu misli asal quraan itam duñ ko def nit ñi ak jinne yi buñ dajaloo woon ne dañuy indi lu mel ni alxuraan ji duñ ko indi léegi gaa yi tële ñi toog ab diir gaa yi tële yàlla nag tàmbali kaaf a yaa mel ni daal day bàkku ne leen seen làmmeñu seen araf yi ngeen di waxee seen soxla di ko binde ci la alxuraan nekk su fekkee Muhammad da koo tappale acca dàqu leen ko da ngeen def leen ko ndax yéen da leen cee fekkoon da leen a fekkoon ngeen di bind ci arabi ijji yi da leen a yéen ndegam yéen nag ne ngeen Muhammad moo def moo ko moo moo ko moo ko defal boppam acca arabi ijji yooyu dañaar fukk ak juróom-ñett te alxuraan génnul loolu saalikal kitaabu téere boobu ñu ngi ko bind ci arabi ijji yooyu dañaar fukk ak juróom-ñett te fi la ko Muhammad fekk te ci seenu làkk la ko wax acca def leen lu ni bu fekkee ci bu fekkee ci Muhammad la jóge kay su ngeen ko su ngeen ko jiimee yéen itam da ngeen ko man loolu moom la masab alul bayti loolu lañu wax mu ne loolu moo indi nag alif laam ra taasin alif miim alif laam miim saat te wax jooju lu jare setantal la ndax dane alif laam raa kitaabun hukkimat ayatuhu ci alifun laamun raa un jiimun xaa un daalun waawun saa un yooyu ci lañ dajale kitaabun boo xam ne hukkimat ayatuhu suma fusilat min ladun akimin xabir weddi ngeen ko andi leen lu ni mel te jël ko ci alifun laamun yooyu noonu mu de waxaat ne taasiin yam fa ñu ne tekk déglu ko ne Muhammad day ma ngay ma ngay jàng arafi ijji yi nee na taasiin te loolu ci arafi ijji la bokk yàlla ne leen tilka arafi ijji yooyu di taas taa um siinun xaa un jiimun loolu moom ci lañ tegale ayatul quraan yi ci loolu lañ ko tegale ba noppi jël aaya yi def ci kitaabun mubin kon def leen ko bu fekkente ni kay pexe Muhammad la def leen ko mu waxaat feneen ne alif laam miim ñu ne ah muhammad day ngay ijjeeti mu ne tilka ayatul kitaabil hakim alif miim jiim daal yooyu ci lañ tegale ayatul kitaabil hakim yi bu fekkente ni mu da ko def def leen ko kazalika alif laam miim saat ñu ne ha mu ne kitaabun unsila ilayka unsila ilayka ñoom mas abalul bayti noonu lañu ñu tekkee uruful ijaiya yi ñoom waxuñu ci ne lii ay turi yàlla la yu ñu war a sikkar waxuñu loolu lépp ñoom dañoo wax ni araf iji yooyu yàlla di tudd ci alquran da ciy bëgg a xamal Quraysh ne leen seen ñaar fukki araf iji yii ngeen di bindee ci la alquran wàcc ñu def ko mu dib téere ngeen ne yàlla defu ko mu Muhammad yaa ko def su fekkente ni mu amat moo ko def te mi ngi ko defee ci seen araf iji yooyu ngeen di bindee te yi ko mag fuuf gën ko dégg làkk wi njëkk ko ko daan ko ci wax aca arafi ijjiyaa ngoog jël leen ay alifun baa un taa un saa un jiimun xaa un alifun laawun miimun kaafun haa un yaa un aynun saadun taasun eh, eh, taa un saa un miimun alifun raa un mu ngi noonu léegi def leen ko ci araf yooyu ngeen di jàngee yooyu ngeen di bindee def leen ci lu mel noonu ñoom dañoo wax ne ijaaz quraan yi ñeel ñi nga xam ne dañoo wax ne alxuraan jógewut ci yàlla yàlla bëgg leen a xamal ne alxuraan de fu mën a jóge itam ñu ngi ko dajalee ci seen arafi ijji yooyu ngeen boole di ko làkke muy ñaar fukk ak juróom-ñett bu jógewul ci man lu may ci Muhammad la jóge waru leen koo dàq def leen lu ni mel noonu la ko mazhab ahlul bayti ñoom noonu lañ ko tekkee néew ma nag na ko kenn gëm néew ma it na ko kenn weddi waaye nag wax naa ni nga xam ne ñoom noonu lañ ko tekkee yellante woon nag sax loolu bañ a doon dëgg ndax su doonul dëgg boo ko leeree nit ñi xam ne lii du dëgg su fekkee ni nag gis nga yeneen i déggin yu nekk ci ahlu sunna yu mel ni yooyu ñuy wax te nangul nañu ñooña yooya nañ leen nangul yi loolu la du leen léegi nag tey ñi ngi dugg ci hudan lil muttaqin foofu lañ yemoon ñu wéy nag mu mel ni yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa bëgga a wax muttaquuna yooyu may wax ñooy ñan ndax su fekkoonte ni yàlla dafa bàyyi noonu rek ne mu taqi ne demu yoonam man nañ ko yóbbu ci waaso wala ñu yóbbu ko ci askan walla ñu yóbbu ko ci xeet wala ñu yóbbu ko ci sant mbaa ñu yóbbu ko ci giño mbaa ñu yóbbu ko ci meen mbaa ñu yóbbu ko ci mbooloo moo sasal sa bopp utal ko tur ne nun ñii ñoo di mu taqu na yi waaye yàlla ba muy wax mu muttaqiina yooyu di waxul lu dul ay jëf ay jëf rek la wax nga xam ne jëf yooyu képp ku koy def ci muttaqiina yi nga bokk ku ko bàyyi doonte da ngaa santoon ay dara yonent yàlla Muhammad di sa maam it boo ko too ci muttaqiina yi alxuraan ni muy waxe mayul waaso mayul giño mayul meen mayul askan mayul sant mayul ab tarixa mayul mel mbooloo nga mën a fexe ne lii noona ndax alxuraan ay jëf la wax ne ku def lii ci mu taqine yi nga bokk ku def bokk ku ba génn ak mbooloo moo mën a bokk ak ku la mën a jurit soo defee bokk soo bayee génn noonu la alxuraan di waxee yàlla ne alladina yuminuuna bil xaybi yi mu taqine yi mooy ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa mooy àllaaxira ak àjjana ak safara yàlla ak yi ñu dul gis wa yuqimuuna salaata te dañuy taxawal julli wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna te la ñu leen wërsëgal ci alal dañ cay dundale moo xam ci génn asaka mbala sarax wala dimbal ndimbal nii ju doole walladina te ñooy ñi nga xam ne yuminuuna bi ma unsila ilayka dañoo gëm li nga xam ne wàcce nañ ko ci yéen wa ma yow muhammad wa ma unsila li qablika gëmaale la ñu wàcce woon te mu jiitu la fi te léegi nag ñu pratiquer seen diine ci lu bees li ma indi te xam ne mooy lu màggat la ñu soppi woon ma dellusi ko wa bil axirati um yuuxinoon te ñoom dañuy wóolu ne alaxira lu am la kon taqwa na ngeen ko seetlu li ko dale baqara ba naas yi amul genn taqwa gu yàlla lay wax te du ay jikkoo ki jëf lay wax ne ku ko def doon ko waaye ku bàyyi diw jur yaa ko doon waxu ko ko sant nangam wax wax nag neexut a dégg ndax nit ñi dañuy wàndal ay wax waaye waaye li ma wax mooy li am kii bani xuraysin la bokk haashimi xuraysi waxut ko kii bani adnaan la bokk waxut ko kii mbooloo sàngam la bokk waxut ko kii bàyyi diwoo ko jur waxut ko taqwa daal li koy mayee te xam ne moo la ci tax a bokk mooy nga gëm kumpa te alaxira bokk ceeg àjjana ak yàlla mi nga xam ne gisoo ko ci say bët soo ko deful nekkatoo taqiyu la ca topp mooy lan ngay taxawal julli loo mën di def ci àddina bàyyi taxawal julli mënutoo nekk taqiyu la ca topp mooy génne asaka soo dul génne asaka ak loo ma a def bokkoo ci taqiyu la ca topp mooy gëm alquran walladina yuminuuna bima unsila ilayka loolu nag gëmuñu alquran ndax nu numinu bu baadin wa nakfuru bi baadin lañ def te yàlla nee na afa tuminuna bi baadil kitaabi wa takfuruna bi baadin li alxuraan rëdd lépp defuñu ko gëm nañ ko nag suñu xol waaye dañoo yàccaaral ne dañ noo not ba mënuñu ko saabatu rasul nag yaara doon am ñu taxawal leen rey leen ba ñu jeex tàkk mbaa ñu bàyyi leen ñu ñu taxaw seen diine ñoom Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali bu ñu dellusiwaatoon fii dañuy taxaw ñu dindi leen ñoom ñëpp suuli leen wala ñu def seen diine kon muttaquna yi mooy ñi nga xam ne dañoo gëm alxuraan gëm téere yi jiitu woon alxuraan ne wàccoon na fi waaye nag jëfe alxuraan yemuñu ci loolu dañ ciy boole lan wóolu ne am la te dana ñëw wa bil axirati te dañuy wóolu ne alxuraan ne alaxira dina ñëw foofu nag wax ja jeex na ci ni muy melale muttaquna yi mu daal di wax nag ne su ngeen xamut muttaqina yooyu nga xam ne ñoom la alxuraan di di di di jubal ulaika alladi ulaika ala hudan min rabbihim da ngeen di seetlu bu baax hudan lil muttaqin ak ulaika ala hudan min rabbihim xam nga wax na hudan lil muttaqin gay wax muy wax ba ak mooy xel mu dellu waxaat hudan kam waxoon bu njëkk li muy tekki mooy ulaayika ñi def lii ala hudan ña nga ca hudan googa nga xam ne muttaqina yi la ñeel min bi im ku tukki ci seen borom wa ulaayka ñooñee nag umul muflihuuna ñooy taxee loolu mooy tafsir bi nga xam ne sëñ mu dem def na ko moom nag ay baati baat la ko def man dama koo gën a yàkkali gën koo leeral boo xoolee nag saaru baqara dafa daal di wàccee ñetti nit almuttaquuna la wàcce wa teg ca alkaafiruuna teg ca almunaafiquuna ndax xam nga ba mu ne ulaayikumul muflihuuna jooju ba mu ko waxee jeexal na ci muttaquuna ya waaye ba mu jeexalee ca muttaquuna ya ñañ la ca teg lu ca topp ca laaya ba ba mu jeexalee ca muttaquuna ya lan la ca teg boo la ca kaamil ba inna alladina kafaru la ca teg sawaun alayhim kon ba mu waxee muttaquuna ya ba noppi kaafiruuna ya la ca teg kon yàlla dafa xaaj ñetti xaaj présenté ndoo leen ci buntu baqara muttaquuna ya te mooy alladina yuminuuna bil xëy bi yuqimuuna si ñooñe mooy muminuuna yi rek waaye dafa romb iman dem ba waa mu teg leen fa te taqwa mënoo caa egg te amoo iman nag nifaax mën na faa dugg nga wax iman ci kaw nifaax ci biir waaye taqwa moom mënut a ànd ak nifaax mu njëkk jël mu taqoona yi te mu taquna yooyu mooy ñi nga xam ne taqabbalul islaama fi jami abaadihi mu taquna yi ñooy ñi nga xam ne dañoo nangul islaam ci mboolem xe mbooleem li mu santaane ak ak ci def ko ak bàyyi lam tere ba mu nekk ba mu noppee la ca teg kaafiruuna yi kaafiruuna yooyu nag yàlla daf leen a teg ñu jàkkaarloo ak muttaqiina yi li tax mu teg leen ci moo di muttaqiina yi dañoo feeñal seen imaan ci jëf ak pas-pas kaafiroona yi dañoo taxaw ne gëmunu jëfunu duñ ko def moo tax ñu jàkkaar ñu ñu ñu ñu jàmmaarloo ñoom ñaar ba noppi munaafiquuna yi nag dikk nga xam ne dañoo lislaame diine kéefëre aqida ñoo ñu def ne ay munaafiqiina ñoom dañoo lislaame seen diine ci julleeg woor ak dem jàkka waaye nag yéefari seen aqida ci taw bañ a bañ a gëm ne yàlla ko am la daal di dañoo jël li feeñ ci bitti jox ko jullit ñi ànd ceeg ñoom la nekk ci biir muy ngëm te yàlla rek xam ko nu xañ ko yàlla dem jox ko yéefar yi ba noppi nag wax leen ko wax leen ni innama nanu maakum innama nanu mustasiun moo tax yàlla ñe nekk ca ngëm gu weex tar da a wax teg ca ña nekk ci weddi gu weex tar wala goog gu ñuul kurum ba noppi nag doole dikk ci borom diine timpi tàmpa yi nga xam ne gëmuñu weddiwuñu dañoo gëmee biti weddee biir yéefar mooy ki nga xam ne dafa nangu ne dafa weddi yàlla ba noppi te itam nëbbul ne man lislaam sabab noonu la ci jëf ak wax fu mu toll mu ngi contre islam di ko wax fu mu toll mi ngi contre islam di ko jëf ndeysaan léegi nag nit day contre islam di ko wax contre islam di ko jëf ba noppi nag jullit la nga ne nga nga dem yow ba yor baatub diine na yaa xam diine te ba léegi mënoo xam ne kii dafa contre islam ci wax ak jëf kon ab yëfar la man sama tafsir léeg-léeg damay wàcc ba mel ni maa ngi maa ngi gàndigaal ndax loolu it dafa war bu nit ki ñëwee ci yow ne de diine nga gëm nekkal fi yàlla man gëmuma diine nekkaluma ko fi xam nga kon kooku moom lu mu naa fiq kooku moom dalaa wanal boppam na lii nga nekk nekkuma ci loolu la la wax ba noppi nag jëfe ko naka la ko jëfe moo di doyuma duma ko attewoo te yow mii doo ko fi attee te doo ci atte ñi nga ilif man maa lay atte ci lu bokkut ak lii loolu kay mooy li aboo Jahl nag Abu Lahab waxoon rek xanaa dañ ko wax Muhammad mu daas jaasir ni leen maag yéen kon tey dañ ko ko kay ñun wax nu ko ñu yor ñu yor yi nopp ragal ragal ko ragal def ni ñoom waaye kii la ne moom du ma gëwuma gëwuma alxuraan gëwuma alxuraan te du ma ci attewu kooku moom woon la ne moom ab yëfar bu wér péng la waaye bala bawoon nga attewu ci nag nga xam ne walam yu xa lam yu lam yu xaatilookum fi diini walam yuxrijookum kon dana mën a nekk waaye bu ca tegee nag ne te atte boobu it du doo ko fi atte sa bopp doo ci atte koo ilif maa lay atte ci beneen atte koo kay saa waay bu la xeexutee lan moo des waaye ma ne dañ ñoo xeex dëgg xeexa na xari rek moo tax ñu nangu ñu nangu tëdd ñu dindi wulli waaye dañ ñoo xeex dëgg loolu moo wér léegi nag baat yi nga xam ne moom la wax ci biir muy al imaanu bil xaybi danañ ko wax ak al irtibaatu billaahi ak ak al ak al irtibaatu binnaasi ak al imaanu bil anbiyaa'i ak al imaanu bi yawmal xiyaama ndax loolu lépp dafa génn ci biir saar wi ndax alladina bi bil xaybi dafa am alxaybu am ashahadatu ñoom ñaar dañoo jàkkaarloo aalamu shuhud mooy aalamul mahsusaat aalamul xaybi nag mooy maa wara al tabia maa wara al is mii taa physique kaa comme nu ko tubaab bi di waxee yàlla bàyyi fi na saada wax xaybu ne yuminuuna bil xaybi yuminuuna bil xaybi jooju nag dafa mën a tekki ñaari xaybu te nit ñi duñ ko settantal yuminuuna bi saadati wa yuminuuna bil xaybi <laughs> loolu mooy dañuy gëm ci feeñal ko ci dem jàkkaa ko ko jàngal xuraan waaye dañuy gëm ci fas ko ci xëy bu xol gi te kenn du ko xam mën naa tekki loolu mën naa tekki itam yëminu la bil xëy bi mu yàlla ak alaxira ak ajjana ak safara ak malaakee gi demee noonu waaye tamit nag mën naa tekki yuminuuna bil xaybi kama yuminuuna bi shahaadati haulaai muminuuna aqan wa laysu bi bi munaafiqin waaw mën naa tekki loolu ndax xaybu dafa am shahaada am ñu di ko tuddee alamul xayb ak alamu shahaada te alamul xëy bi ak alamu shahaada dañoo jàkkaarloo ñoom ñaar alamu shahaada mooy alamul mahsusaat mooy yi nga xam ne da koy yëg di ko gis di ko dégg alamul xëy bi nag mooy la ca gannaaw yëg ak gis ak dégg nga xam ne eh, xëy bu ci cosaan mooy li nga xam ne dafa fàddu ci yow gisuloo ko te pas pasab jullit bi dafa fàddu ci beneen jullit bi gisu ko kon jullit bi mën naa ànd ak moroomi jullitam di julli ci bitti muy yo kooku amana bi shahadati waaye nag gëmut yàlla ca biit te bu boobaa kafara bil xëy bi mu'min dëgg nag taqi dëgg nag yuminu bil xëy bi yuminu bi shahadati mën naa tekki loolu loolu moo tax yàlla ne alimul xëy bi wa shahaadati ndax alimul xëy bi moo xam ngëm ak pas pas ak jullit ya ca biir seeni xel ak seeni xol wa shahaadati ak ngëm gi ñuy def ci bitti mu jàpp ak jullit dem jàkk wër wër wër kaaba ga ak joxe asaka yu demee noonu loolu tamit da koo mën a fekki ginnaaw bi nga xamee ne gëm nañu kumpa ba noppi ñu daal di raw buum goo xam ne mooy takk seen diggante ak seen borom buum googu di takk seen diggante ak seen borom nag moo yuqimuuna salaata su fekkente ni euh, taxawal nga julli raw nga buum gi jàppale sa diggante ak sa borom ablun minallaahi nag ak ablun minannaasi am na foofu wala boog ablun ilallaahi wa ablun ilannaasi asalaatu ablun ilallaahi wa wa infaaxu hablun ilannaasi maanaam nit ki dafay raw ñaari buum bu gëmee yàlla gëm kumpaag lépp ba noppi bu dee taxawal julli raw na buum gu takk ca aras bu yëkkati alam di ko def ci nit ñi nag raw na buum gu mu takk ci baati nit ñi pour man leen a wommat taxawal julli ngir jokkoo ak alamul alamul xayib joxe asaka saraxe leele dimbal nit ñi pour jokkaloo ak alamu saada olof nee na ku ëmb sa sangal ëmb sa kersa kon ba yàlla ne yuqimuuna salaata danañ taxawal julli te loolu li muy tekki mooy julli buum la gu dox diggante nit ki ak boroomam ndax li tax buum la gu dox digganteem ak boroomam wa ma wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafili dégg kon kon ngeen xam ne a taqarrubu ilallahi bi bil faraidi wan nawaafil yi nekk julli buum la gu dox sa digg sa boroom nga jàpp ci mu jàpp ci yàlla te boo bawul di xëcc yàlla du dikk dikkiinu nga man koo xëcc waaye boo dee xëcc di nga fekki ko ruuxiyan maanaam waxuma maddiyan ci ruu laay wax waaye tamit su fekkente ni da joxe asaka di le alaw ñam di dimbale nit ñi ci sa alal itam bu raw nga bum goo takk ci baati nit ñi te boo ba wut danañ la fekk si kon jaamu yàlla ngir jokkook moom def ci nit ñi lu baax ngir jokkook ñoom la bu yàggee rek boo jógee ne kaa leen gunge ma fu ñu jëm ca yàlla ah waaye kii kat am na njëriñ nañ ko topp dem ca yàlla politiciens yi ndax noonu la ñuy doxale buñ sàccee ba giijal yi dañuy wër di maye doon yàlla du ko fay buñ sàccee ba dañuy di maye waaye yàlla mu dafa wax ne bu ginnaaw bi ma gëmee dee ma jaamu ngir ma jokkoo sa diggante bi man ak yow te yëkkati eh, alal di def infaaxu fi sabilillahi ngir nga am ak jokkoo sa diggante ak nit ñi loolu ci ngay gisee wa mimma razaqnaahum yunfiquuna iqaamu salaati li lil irtibaati billahi wa infaaxul maali lil irtibaati binnaasi loolu dikk na ca biir ca biir laaya ba loolu jàll mu daal di dikk foofu al imaanu bil malaikati ak al imaanu bir rusuli ak al imaanu bil kutubi loolu lépp ci benn place boobu la génn dama bëgg ngeen seet lu baax li may wax al imaanu bil bil anbiya yi ak al imaanu bil malaikati bi al imaanu yépp mi ngi génn ci yuminuuna bi ma unsila ilayka yuminuuna bil xay bi nag ci la imaanu bil yawmil axir dugg ci la al imaanu bil qadar xayri i wa sharri i dugg ci la al imaanu billahi dugg ci la al imaanu bil malaikati dugg ci yuminuna bil xaybi ndax allahu xaybun wal malaikatu xaybun wal axiratu xaybun kon bu ne yuminuna bil xaybi rek def na foofu al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil qadar loolu lépp mën naa dugg ci yuminuna bil xaybi waaye nag yuminuna bi ma unsila ilay walladina yuminuna bi ma unsila ka wa ma unsila min ka nag foofu yonent yi dañ fee dugg téere yi dugg fii malaaka yi sax mën nañ fee dugg ndax boo gëmee ne lii nu wàcce ci muhammad dëgg la di nga gëmaale ne kon malaaka yi ko doon indi di ko wàcce ñu am lañu di nga gëm ni Muhammad mii ñu ko wàcce ci moom it yonent la lu am la te su boobaa dalay obligé nga gëm ñi fi njëkkoon a wax ne yàllaa leen yónni te indi woon téere ndax soo leen weddee weddee aada nga Muhammad mii ndax ñoo bokk fu ñu jóge kon al imaanu bil malaayika al imaanu bil rusul al imaanu bil kutub yett yooyu ñoom ñëpp ñoo ngi duggandoo ci yuminuuna bi ma unsila ilayka wa ma unsila mu jeex nga gis nag mu ne wa bil axirati um yuuxinuun waxul yuminuun de yuuxinuun la wax te boo duggee ci wa bil axirati um yuuxinuun rek dem nga dellu si nga ci al imaanu bi yawmil axir al imaanu bi yawmil xiyaama kon diggante alif laam mim ak muflixuuna yàlla wax na fi al imaanu billah al imaanu bil malaayika al imaanu bil kutub al imaanu bil qadar xayri wa sharri al imaanu bi yawmil axiri ak al imaanu bi rusul li tax mu def li tax al imaanu bil qadar dugg ne foofu ci biir te nit ñi duñ ko seetantal bu yàlla yónnee Muhammad waa Màkka bañ buñ gëmoon ne yàlla mooy dogal lu ko soob kon bu kon bu yónnee Muhammad danañ ca ànd weddi gan weddi dogalab yàlla moo tax yàlla dogal Muhammad di ab jirim ndey ja génn àddina baay ba génn àddina maam ji génn àddina mu ne ndëliñ di wooteel yàlla na yàllaa ko yónni loolu dogalab yàlla am na ñoo xam ne ca Makka ci weddi dogal la ñu jaare ba weddi Muhammad ne lii wërta na ne lii yàlla mënu koo def lu ko teree yónni diw ak diw ak diw weddi na dogal kon buntu alif laam miim ba mufli una arkaanul imaan yépp dugg na ci biir donte amat génnewaat na ko di ko jàngalee hadis waaye arkaanul iman yëpp dugg na ci biir kon <clears throat> loolu mooy allazina ñi nga xam ne yuminuuna dinañu gëm bil xay bi ci kumpa wa yuqimoon ñuy taxawal asalaata julli wa naa razaqnaa yunfiquuna te la nga xam ne wërsëgal nañu leen ko danañ ca leale danañ ca dépassé danañ ca joxe su boobaa nag day daal di ëmb asaka ndimbal sarax ak ak may lépp ci yunfiquuna lay dugg wala dina te ñi nga xam ne yuminuuna dañuy gëm bi ma unsila ilayka li ñu wàcce ci yow muy alxuraan gëmaale ko wàcce ci yow wa ma unsila min gëmaale ci biir ngëm gi ña ña ña ma njëkkoon a yónni gëmaale itam la ñuy wàcce ci ñoom wa bil axirati hum yuqinuuna te al dañu koy wóolu ulaayka ñooñee ala udan ñoo nekk ci ak njub min rabbihim gu dukke ci seen borom wa ulaayika te ñooñe umul muflihuna ñoo way taxe ya léegi nag <coughs> maanaa yooyu nga xam ne moom laa doon wax <coughs> muy yuminuna bil xayb yeeg yooyu ak yooyu il faut ma dellu ginnaaw wax ca saaba ya ak taabiina ya naka lañu ko firee woon ñoom bu dee allazina yuminuuna la abu zara nee na amr ibnu hamad nee na ko asbat nee na ko suda na ko alladina yuminuuna bil xaybi ñoom dañoo moom dafa wax ne ñu mooy ñi nga xam ne ñoo di al muminuuna min al arab bil xaybi rekk nag kumpa googu prix ci fan lañ ko sukkandikoo ku ñuy wax Ahmad ibnu Sinaan nee na Abu Muawiya wax na ko ne Amas nee na ma ma Abdurahman ibnu Yasid nee na ko dañoo toogoon di waxtaane saaba yonent bi ak seen ngëm ga ci ab fa Abdoulaye Abdoulaye ne xanaa ibnu Omar la wala ibnu Abbas ne inna amra muhammadin kaana bayinan liman ra'ahu walladi laa ilaha xayruhu ma amana muminun min afdali ima min min afdali man yani min min afdali min imanil xaybi nga gis ne kon kooku indi na geneen dégg goo xam ne ci mu na bil xëy bi la bokk ba ñuy yéem ngëm ak saaba yi seenug ragal yàlla seenug maandu ba eggal da leen ne dama ne ngëm ak saaba yi mooy ngëm ak ku gis yonent bi muy wax waat naa ci yàlla mi nga xam ne moom rek ay buur ngëm ak ki gis Muhammad jàkkaarloog moom gëm ko duñ ko gam-gam leeg ki ko gëm te gisu ko ndax kooku daa ñëw rek ñu ne ko am Muhammad di ko nëfi mu gëm ko te loolu loolu am na hadis bu ci wàcc ndax man tamassaka bi sunnati a fasadi ummati fala o ajru mi ati shahid bokk yonent bi waxee sahaaba yi da wax ne képp ku ngoo ci sama sunna jamono joo xamee ne sama xeet yàqu na toppatuñ sunna di nga am yoola téeméeri nit ñu xeex ba dee ci jiyaar eh, eh, dañ ko ne waaw yow xanaa téeméeri nit ñu dee ci jiyaar ca ñoom la mu ne leen déedéet bis boo xamee ne dem nañ ba sama xeet yàqu ku ngoo ci sunna ku nekk mel na ni téeméeri abubakar yu ñu rey seen ab yool kooka daf koy am noonu la demee kon yuminuna bil xay bi man naa tekki gëm ca fàddu ga gëm ca jamono ja nga xam ne Muhammad fàddu na nga juddi ñëw fekk koo ko fi ñu wax la ko nga gëm ko loolu it yuminuna bil xay bi mën na ko tekki imaam raat yi nag mooy wax man damay nettali te loolu mooy liy tekki diggante allazina yu'minuna bil xaybi ba ci wa mimma razaqnaahum yunfiquuna ndax kat am na ku ñëwoon fii dinaar bu dëkk màkk na yàlla ko yónni nga ne gëm naa ko te yaa ngi Ndakaaru bu juddu ah, dem na ba am junni at ak ñeenti téeméer ngay door a juddu ñu ne la ah ba mu ñëwee kat téere bii nee na moo ko indi ko fi nee na yàlla moo ko moo ko ko jox nga ne gëm naa ko ñu ne ah, moom kat nee na néeg boobee ca pincam màkka dañ faa war a aji mu ne nangu naa ko waaw a ah, moom kat nee na soo amee alal denc ko ren ba déwén mille francs yu nekk vingt cinq nga joxe nangu naa ko a ah, moom kat nee na da ngay génne boo waree ba koor gi tax da ngay génne muurum kër danaa ko def lépp bil xëy bi la ndax ki ko sant gisoo ko du fekkoo ko fi fekkoo ko fi mu amat new fi waaw léegi nag yooyu itamit mën naa tekki xëy bu bi nga xam ne moom la ñuy tekkee yuminuna bil xëy bi boo déggee ku tekki ne yéemu ne danañu gëm bil xëy bi gëm goo xam ne ba ñu koy gëm mu amat ma ñuy gëm fàddu na nekkatu fa ñu dal koo gëm te fekk nu ko fi kooku tamit bu ko waxee boo déggee nit firee ko noonu bàyyi ko mën na nekk ba léegi Aysaam ibnu Rawaad nee na Adam al Asqalaani nettali na ko ne Abu Jaafar Raasi nee na ci Rabia ibnu Anas mu ci mu jëli ci Abil Aliyata Abul Aliyata wax ne alladina yuminuuna bil xaybi day li muy tekki mooy yuminuuna billaahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi wa qadarihi kon la doon wax ne. arkaanul imaan yëpp dugg na foofu addis ba moo nekk noonu ba léegi nee na yuminuuna bil xëy bi mën naa tekki gëm dekki gannaaw dee ndax ku gëm ni soo deewee danga nga dekkiwaat te déewagoo loola nga gëm ca ginnaaw dee te eggagoo ca bu la ci yow kon comme kon ba tey gëm dekki bokk na ci gëm xëybu te gëm dekki rek mooy gëm yow mal xiyaam ndax ku dekki da ngay jóg taxaw kon mooy bu sab dekki ba jóg taxaw loolu moo tekki moo seere li ma wax ne yuminuuna bil bi arkaan arkaanul imaan dugg na ci ba léegi itam yuminuuna bil xaybi dina tekki gëm gëm yàlla ci boppam ndax abu zaraata dafa wax ne safwaan nee na walid nee na usmaan ibnu nee na ko ata ibnu abi eh, ibnu abi rabahin nee na ko allazina yuminuna bil xay bi moo di man amana billahi ndax man amana billahi faqad amana bil xay bi ndax gisu ko kon yuminuna bil xay bi mën naa tekki gëm yàlla ndax yàlla ci boppam xaybu la ba léegi waxoon naa leen ne yuminuna bil xay bi mën naa tekki yuminuna bil xadar yi addis baa ngi nii nee na muhammad ibnu moussa nee na ibnu nufayin alharshi nee na ko abdullah ibnu jaafar nee na ko zeyd ibnu aslam nee na ko allazina yuminuuna bil bi moo di allazina yuminuuna bil qadari xayri i wa sharri i ndax mbir dina am doon dogala bi yàlla ñu la dogala bi yàlla nga d'accord ci ba ko yàlla dogal da nga koo gis da fekk ba mu koy def da gis rek ne lii kenn mënu ko dogal ku yàlla te yàlla kumpala nga gëmaaleb dogalam gëm dugalab yàlla nag bokk na ci gëm kumpa loolu tamit nga dem nag ci wa yuqimuuna salaata yan dalaa il moo ci am yuqimuuna salaata day dañoo laaj Muhammad ibnu Yahya mu ne moom de Abu Ghassan da ko wax ne Muhammad ibnu Amri noon na ko Umayr maanaam Muhammad ibnu Amrin newoon na ko salimata sala salam abi sala salamata salamata nee na ma muhammad ibnu isaaq nee na ko muhammad ibnu abi muhammad mawla nee na ko seyd ibnu sabit nee na ko aqira akrimatu aw wala said ibnu jubair nee nañ ko ñoom ñett ñëpp ibnu abbas daana wax ne yàlla day bu waxee ca teddam ga ak màggam ga ne yuqimuuna salaata lam ca jiblu mooy muy ñuy taxawal julli te naa ca farata ya yépp yéwénal ko taxawal ko ca na mu waree su ma doon dugg nag ci taxaw jooju rek moom du jeex waaw ndax taxaw jooju moo tax boo jullee toog te mën a taxaw julli ko yàqunu ndax taxaw la yàlla wax taxawal googu moo indi iqaamu salaati ji ñuy wax naan xadd qaamati salaatu xadd qaamati salaatu yuqimuuna jooju baat yu baree baree bari ci baati sharia ci yuqimuuna jooju la la la la génn ba léegi yuqimuuna salaata dina tekki taxawal julli ak wattu ko ca waxtoom te bañ koo bàyyi mbaa nga di ko tardeel loolu itam Muhammad ibnu Fadlin moo wax ne Moussa eh, eh, Fadl ibnu Moussa moo ko moo wax ne muhammad ibnu ali ibnu asan nee na ko ibnu shaqiq nee ko abu wahbin muhammad ibnu musaim nee na ko bukayr ibnu maaruf nee na ko muqatil ibnu hayaan nee ko boo déggee yàlla ne yuqimuuna salaata la muy tekki mooy iqamatuha almuhafasatu ala mawaqitiha wa isbaaxu tuuri fiiha wa tamaami rukuiha wa sujudiha wa tilawati alqur'ani fi a wa tashahudi wa salatu ala nabiyi fa asa muqatil ibnu hiyan dafa ko wax ne iqamatu salat de boo ko xamut mooy al muafasatu ala mawaqitiha nga wattu waxtoom yañ koy julli nga julli ko ca ak lan mu ne wa isbaaxu tuhuri fi a nga jotal njàpp ak laab ca julli ga ñu ne ko ak lan mu ne ak nga matal rukkoo ak si jóot ñu ne ko ak lan mu ne ak nga jàng alxuraan ca biir julli ga ñu ne ko ak lan mu ne ak tasa taaya ak salaatu ala nabi loolu mooy iqaamatuha loolu mooy taxawal julli kon kii nee na taxawal julli day moo di def ko ca waxtu wa boole ko njàpp matal rukkoo ak si jóot ya jàng ca biir faatiya ku saar taaya julli ci yonent bi sëlmal loolu mooy iqaamatuha kooku noonu la ko déggee boo demee ci moom maraîchage am si xóone itam mooy joxe asaka ngir def ko ci ndigalal yàlla loolu Muhammad ibnu Yahya moo wax ne Abu Ghassan Muhammad ibnu Amri nee nee na ko eh, nee na ko sali salamata nee na ko muhammad ibnu ishaq nee na ko moom ibnu abi muhammad mawla nee na ko sayd ibnu sabit nee na ko ikrimatu ak ak said ibnu jubair nee nañ ko ibnu abbas nee na ko wa mimmaa razaqnahum yunfiquuna jooju de boo ko déggee mooy joxe gi ñuy joxe asaka kon wa mimmaa razaqnahum joxe asaka fa la génn mu mel ni kon aaya bi arkaanul iman ak arkaanul islam moom la dabbase foofu ci biir aaya bi boo demee ci wàllu si ni mu ne bi maa unsila ilaykum min qablika yi tamit noona lañu ko fa waxee mooy gëm li nga xam ne yonent bi indi na ko gëmaale li nga xam ne sa yonent ya ko jiitu woon indi nañ ko bañ a tàqale benn yonent di ko gëm di beddi benn yonent di ko weddi mbaa nga tàqale benn téere di ko gëm beddi beneen téere di ko weddi wàcc ak téere yi ci yonent yi moom lépp lañuy ñuy gëm bëgg maale ci alxuraan waaye jëf ak li téere yi sentaane moom alxuraan lañ koy laaj ndax indi na lañ njëkk indi na li mujj indi la li manqué soppi na eh, delloosi na liñ ci jëloon sàcc ko faxas na liñ ci boole te bokku ci kon mooy téere ba rek benn bee moom ngay jëfe waaye wàcceeg yépp ngay gëm loole nag la ko indi mooy muhammad ibnu yahya moo ne al abbas ibnu walid moo ne yesit nee na said wax na ne qatada nee na wala dina yuminu bi ma arsalayka wa ma arsil min la muy tekki mooy amanu bi amanu bil quran wa bil kutubi allati qad xalat qabla min at-tawrat wa sabur wal injil loolu mooy wa ma unsila ilayka wa ma unsila min qablika gëmal quran gëmale tawret ak linjiil ak sabuur wa bil aaxirati mu yuqinu itam mooy gëm dekki ak yowmal xiyaam ak ajjana ak safara ak regle ba ak miisaan ak siraat loolu lépp ci wa bil aaxirati mu yuqinu na la bokk Muhammad ibnu Yaxya moo wax ne abu ghassan nee na muhammad ibnu amrin nee na ko salimatu sali salama nee na ko muhammad ibnu ishaq nee na ko muhammad muhammad ibnu abi muhammad nee na ko ikrimatu nee na ko ak said ibnu jubair ne ibnu abbas nee na wa bil axiratim yuqinuuna ay bil baasi wal qiyamati wal jannati wal naari wal isaabi wal misaani kon wa bil axiratim yuqinuuna gëm yowmal xiyaam ci la bokk gëm dekk ci la bokk gëm àjjana ci leen bokk gëm safara ci leen bokk gëm règle ba ci leen bokk gëm misaan ya ci leen bokk moom loolu la wax loolu ibnu abbas wax man nag ma teg ci gëm jéggi siraat ci la bokk gëm naan kawsara ci la bokk bu la neexee sax nga boole ci gëm àjjana ak safara loolu lépp boobu laa xam ne yow fi ñu na mën na koo boo dikkee ci ulaayka ala udan min rabbihim nag muhammad ibnu yahya nee na abu ghassan nee na muhammad amrin nee ko salimata nee na ko jëlee naa ci muhammad ibnu isaaq mu wax ne muhammad ibnu abi muhammad nee na ko ikrima ma nettali wala said ibnu jubair ne ibnu abbas nee na ulaayka ala udan min rabbihim ay ala nuurin min rabbihim wa istiqamatin ala ma jaa bihim ña def loola gëm ko ña nga jóge ña nga ña nga ci seen leer ak borom ca na nga ca njub gu jógee ci seen borom dikkal leen ulaay ulaakum lu fi oona foofu la ñu jëm tey ulaakum lu fi oona ñooña ñooy way texe ña loolu itam boo xoolee fa nga xam ne fa lañ ko tër dañoo wax ni Yahya ibnu Usmaan moo nettali ibnu saali il misri mu ne bàyyam nettali na ko di usmaan usmaan ibnu lu ay a moo ko nettali ibnu lu ay la lu ay a ubaydillah ibnu muxayra ko nettali mu jëli ci abi haysam te abi haysam suleymaan ibnu abdin la tudd mu jëli ci abdullahi ibnu amrin mu jëli ci yonent bi saa mu ne yonent dañ ko mësoon wax ne lu de dañuy jàng ci alquran te yaakaar ci biir alxuraan dañuy jàngit ci alxuraan léeg-léeg ñuy bëgg a décourager wala boog nam ko ko waxee yonent ne ko ala uxbirukum an alil jannati wa alil naar qaalu balaa ya mu ne leen ndax du ma wax ba àjjana ak safar ñu ne leen ah, kay mu ne alif laam miim zaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin ba ca ulaa'ikum la fi woon mu ne ñooy waa àjjana gaa yi ne ko inna narju an nakuna haawulaay ñun ñooñu lañ bëgg a nekk mu ne leen inna alladina kafaru sawaahun alayhim ba ca ba ca asaabun azim mu ne leen haawulaay ahlu naar gaa yi ne ko yonent bi ñaanal ñu yàlla yàlla bu ñu yàlla boole ca ñooña kon noonu ñu ko noonu ñu ko noonu noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it firee kon leeral nañu ko ba ci mufliuna ba ci asaabun alim kon nag ñu takraar baat yi ci benn audio ba ci asaabun alim alif laam miim yàlla moo xam lam na mu loola zalikal kitaabu téere bii laa rayba déet sikk fii i ne nekk na ci téere bii udan ak njub lil muttaqiina ñeel way ragal yàlla ya man dañ ko ne yàlla way ragal yàlla yooyu ñooy ñan mu ne alladina ñi nga xam ne yuminuuna bil xëy bi dañuy gëm kumpa wa yuqimuuna salaata ñi taxawal julli ca taxawal yi ni ma waxoon wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna dañuy joxe ci seen alal ya ma waxoon léegi walladina mooy gaa ñi nga xam ne yuminuuna dañuy gëm bi maa unsila ilayka la wàcceef na ko ci yow wa maa unsila min qablika ak la wàcceef na ko ca keneen ka la jiitu woon te mooy yonent yi jiitu ya wa bil axirati te ci laaxira hum ñoom yuuxinuuna way wóolu ulaayika ñooñee ala udan min rabbihim ñoo nekk ci njub bu jóge ci seen borom ba ulaayika te ñooñee umul muflihuuna ñooy way texeyaat waaye ina alladina kafaru gaaña weddina nag sawaun aji la alayhim ci ñoom an sarta um moo xam waa xupp nga leen am lam tunsir um wala sax xuppoo leen soo leen xuppee duñu gëm boo leen xupput duñu gëm moo tax mu ne laa yuminuuna duñu gëm lu tax duñu gëm mu ne li tax duñu gëm mooy xatama laahu yàlla dafa tey ala xulubihim ci seen xol ya ak ca seen digg ca ca ca ak ak ak seen nopp ya wa ala absaarihim xishaawatun te muuraay la teg ca bët ya wala um ñeel na leen asaabun mbugal asimun mbugal gu tar loolu mooy fa ñu daanu ji tey asaabun asim buñ dikkee si bu fi la ñu dalee